ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam fas yéene jël ab bind ci ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ñu ci bégal ci ne du daje mukk benn mbooloo ci benn néeg ci néegu borom bi ñuy jàng téereb borom bi lu dul yàlla dana wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem yebal ay malaakaam ñu wër leen mu leen di tudd tudd ngërëm ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi mboolem ñi nga xam ne nii it ñoo koy nar a déglu na doon ñu koy déglu en direct actuellement fi ñu toll wala ñu koy déglu gannaaw ba it ñun ñëpp yal nañu yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne seeni xol day aju ci néegi yàlla ya ñoo ñi nga xam ne daan mérito ñu keral leen bis bu yàlla di atte ay jaamam fa lilah alhamd gis nañu ne natt bi wër àdduna taxoon na ba Sénégal fii ñu indi woon fii benn couvre-feu boo xam ni neuf heures lay commencé taxoon na ba ñu bari sax mënatuñu woon a ñëw alhamdulilah comme yolomal nañ ko ba léegi changé ko ba minuit du ñàkk ñoo xam ne dañ am occasion pour man koo teewee ñu ñaan borom bi nga xam ne it moo ko wàccee yal na yàlla yërëm waa suuf jéggal leen ci teggi ko ci jàmm fa lillahi alhamdu it comme ni ngeen ko xamee suñu borom nattoo nañu daanaka semaine bi fitna yoo xam ni gëj nañu koo gis ci Sénégal gis nañ ci yàlla may nañu ci ak jàmm ak tawféex loolu ngëneelam la am na dëkk yu muy am ay weer lay duré kon falilaa alhamdu jàmm jooju yàlla na ko yàlla saxal te tey ñu ngi ñaanit képp koo xam ne say wax mën naa jur fitna nga la waay nga moytu ko jàmm am na naam waaye gannaaw lan gannaaw fukki bakkan yu tuuru mbokk loolu bëri na gannaaw lan gannaaw combien de blessés gannaaw lan gannaaw di milliards de pertes yu ñu am ci réew mi loolee mbokk musiba bu rëy la ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel bu baax suñu guddik tey gi it mooy guddik ñaar fukk ak juróom benn ci weeru rajab lu bari ci goxe àdduna bi dañu koy jël di ko màggal màggal googe ñu ne ci la yonent bi defoon li ñuy tudde isra wal mi'raj jóge Makka wàcc Palestine jóge ci kaw suuf dem ci kaw asamaan ya awalan la ñuy jëkk a wax mooy jullit bu nekk da nga war a gëm ni loolu événement la bu amoon waaye it nga gëm ni kenn xamul loolu kañ la woon borom xam-xam yu juuyoo nañ ca at ma juuyoo ca weer wa avant ñuy juuyoo ci bis ba ñaareel ba même buñ jàppoon ne tey la sit amul benn jaamu yàlla boo yu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ci loolu yi ñu bàyyi ci xel bu baax kon mi ngi dëppoo git le 10 ci la nga xam ne mooy weeru février ñu war a dal tey ay juróom fukk ak ñett fi suñu weeru mars naam weeru mars ah ah waaw ñu ngi ci bisu guddi gi moom guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar la tey jii mooy ñaar fukk ak juróom benn àllarba bi mooy ñaar fukk ak juróom benn ndax dañ naan tafsiru àllarba doonte ne tafsir bi mi ngi am ci guddig alxamis kon tey mooy ñaar fukk ak juróom ñaar ci weeru rajab guddi gi naam su ko defee juróom fukkeelu aay bi ak ñett mooy fi sunu borom di waxee ni ya ayuha alladina amanu la tadxulu buyuta nabi incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jëloon ñu suñu bind bu jëkk
يا أيها الذين آمنوا قالوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برمني يا أيها الذين آمنوا ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tadxulu buyuta nabi bu leen dugg mukk ca la nga xam ne moom mooy néegi yonente ba ca këram illa an yuzana lakum lu dul xanaa dañ leen a jox ndigal ila taamin gayra nazirina inaah ci ñam woo xam ni du ànd ak ngeen dem di aji xaar ak ñorom walakin ida duitum fadxulu waaye fu ñu leen woowee dem leen dugg fa ida taimtum fantashiru su ngeen lekkee ba pare tasaaroo leen wala mustaanisiina li hadis bu leen fa nekk di wéttali konte ci ay wax inna zalikum kaana yuzi nabi loolu nekkoon na di lor yonent bi fa yastaxyi minkum mu daa di am kersa ci yéen wallahu la yastaxyi min alxaq amma yàlla nag moom du am kersa ci dëgg wa ida saaltumuhunna mataa su ngeen dee laaj soxna yenente ba ay njëfinukaay fasaluhunna min warai xijab na ngeen leen ko laaj ci gannaaw ay kii gannaaw kiiraay zalikum atharu li qulubikum wa qulubihin loolu nekk na ñeen leen di gën a laab ñeer seeni xol ak xol yi soxna yenente ba wa ma kaana lakum an tu'zu rasulallah nekkul yel yell ci yéen mukk ngeen di lor yonent bu yàlla bi wala an tankihu azwajahu min baadihi abada wala ngeen di takk ay soxnaam gannaaw moom ba faw inna zalikum kaana inda allahi azima loolu day nekk na ñel leen ca yàlla mbir moo xam ne mbir bu màgg la in tubdu shay'an aw tuxfuhu su ngeen feeñalee mbir wala ngeen nëbb ko it fa inna allaha kaana bi kulli shay'in alima yàlla moom bépp mbir mooy ka nga xam ne moo ko xam mi ngi noonu bokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon na ko mu jiite lu yaatu avant muy faatu gox yu bari am ñu ko fa gëm di ñëw madina gannaaw ba ak waa madina yépp loolee da ngay gis taxoon na këram nga nekkoon njooxe ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal am jafe-jafe ci wéet ak i soxnaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala jëkk a yedd ñooñu soo delloo te suratul xujuraat borom bi ni ñi nga xam ne day dañuy ñëw gisuñu yonent bi ci jàkka ja ñu dem di ko génne ca këram la ëpp ci ñoom amuñu xel aksaruhum la yaqiluun walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum ana lu teewoon ñu muñ ba nga génn mbokku lislaam rek moom moo am prévoir ka nga xam ne moo jiite di am contact jaxasoo ak ñim jiite juróomi yoon par bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk madina yépp mboole mi julli moo koy jiite juróomi yoon par bis fajar tisbaar takusan timis bëggee sallallahu alayhi wa sallam lu bari bu ma saan julli fajar fa lay toog ba jant bi fenk kii koy sëñ bi neexul a gis looloo tax kenn daawu ko rang kenn daawu ko rang sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu amma gaa yi ñu nettali ni góor ak séeréer ga ba mu ñëwee fekk gaa yi rang kër sëriñ bi sonn lool mu ne waaw lu xew dañuy rang pour gis sëriñ bi mu ne dem leen bu ngeen demee dina génn gis ngeen ala kulli xaal mbokk doomu aadama yu bëri ñooy jafeel seen bopp waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggeel gu ko saxaaba yi bëggoon dee su ko bëgg nit bay laa yawmi diin waaye kenn daawu ko rang lu tax mooy dafa yomboon a gis foo tourné gis ko cinq fois par jour mi ngi ci jàkka ji lu xew ci biir madina sol na dàllam bu dee ayo mu dem réglé ko bu dee feebara mu dem seeti ko kenn daawu ko rang sallallahu alayhi wasallam waaye nag kër ga amul na problème suñu borom mu ne waaw muñ leen ba mu génn ci yéen loolu muy benn léeg-léeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan woo ay nit ñu ñëw këram di fa lekk rawatina ñi ñu daan tuddee waa asabu suffa di gàñi lislaam yi nga xam ne ñëw nañu amaguñu fenn fu ñu dal ñu dal ca jàkka ja loolu nag da ngay gis ñu bari comme xam nañu yonent bi dafay wooteeb reer dañu daan teele dem toog foofu mi ngi noonu teele dem toog foofu muy benn défaut deuxième défaut bi it bu ñu reeree ba pare toog di waxtaan jëmale xaaju guddi gis ngeen suñu borom yàlla nag ne loolu bu mu amati ay yéen jullit ni buñ leen woowee ci kër yonent bi dugg leen mi ngi noonu loolee nga xam ne nii suñu borom wax na ko bu leen fa dugg lu dul ñu woo leen kon amuñu droit dugg fa amma bu ñu leen woowee nag su boobaa am ngeen droit ngeen dugg fa te loolu it gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp julit boo xam ne woona mbokk julitam ca loolee ak lor ni ku ca dafa war a dem wuy ji allahuma lu dul li suñu borom wax ne su ngeen lekkee ba pare dem leen bu leen fa toog toogaay boo xam ne nii dafay lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool it képp ko dem sa kër mbokk jullit war nga koo bàyyi xel ngallaawaay heure boo xam ne da da laa invité wala nga dëppoog moom nga ñëw la nga fa doon wut moom jeex na bu fa toog toogaay boo xam ne nii da koy lor. te loolu nga gis ay léeg-léeg ay nit ñoo xam ne dañuy gàtt xel sama kër xarit la rek dem toog di waxtaan ba onze heures minuit loolee mbokk ku am xel di def loolu war ngaa xool ba xam ndax lii lor la am déet ñaareel bi it heure booy dem di dugg ci kër nit war ngaa bàyyi xel ndax heure bi heure visite la am déet ndax heure bi moom du nekk heure nelawam ndax heure bi du nekk heure noppaloom loolee ku nekk ci ñun da ngay gis ne suñu boroom bi muy jàngal jàngalul saxaaba yi kese saxaaba yi diir bu ndaw lañ dugg ak yonente bi dem kon mi ngi doon jàngale ba ila yumi diin ci lépp loo xam ni ab julit mën na caa loro amma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mi ngi ko doon lor waaye ndax taxaw na mu naan gaa yi ee jóg leen ngeen dem déedéet moo ëppoon kersa ci li yàlla bind dañ naan jànq yi nekkoon seen néegi yaayu sax yonente bi alayhi salaam moo leen ëppoon kersa mosul jàkkaarloog nit wax ko lu koy lu koy lu koy frustré abadan loolu nag suñu borom mu ne moom day mi ngi rus te it julit da nga war a am kersa bokk na xas yi gën a bon diw kooku dafa ñàkk kersa ku ñàkk kersa xamal ni jukkul islam boobu amatoo ko yonent bi rus na leen waaye yàlla moom rusul ci dëgg loolu it mu ñuy déggal ni suñu borom. dañ koy saxalal lépp lum saxal ci moom saxalal ko lu yonent bi saxal ci moom te bokk na ci loolu yàlla daa am kersa yonent bi alayhi salaam mu ne inna allaha hayyiyun karimun yàlla ku am kersa la ku tedd la rus na jaam yëkkati ay loxoom jëm ci moom di ko ñaan te joxu ko dara suñu borom it mu ne du rus ci dëgg loolu it mu lay wan ne yow it loo am am kersa la nga xam ne mooy dëggug yàlla bu ci rus loolu rus ci complexe lañ koy tuddee kenn du ko tuddee ko kersa laaj sa diine gallawaay bu ci rus ak laaj ba fu mu mën a jaare suñu yaay Aïcha daana wax ne yal na yàlla yërëm jigéeni ansaar kenn ëpp leen woon kersa waaye doxul woon ak ñu dem jàngi seen diine ay question yu sensible yoo xam ne ku ko waxoon tey ci kanamu kilifa daan toj sam nopp eyu mi yàlla yónni sama jëkkër de biig dañoo war a ànd ci lal bi mu ne ma da ngay jël position sangam ndax loolee dagan na jigéen di ko def ak borom këram yeneen bi ne ah su dee ne moom fa mu jëm mooy fa doom di sosoo day dagan na mooy loolu ku ko ñemee laaj kilifay tey ji gis ngeen ay yu mbir yu sensible loolu du tee mbokk loo am am kersa bum la tee na nga xam ne mooy sa diine nga laaj ko gannaaw loolu suñu borom yàlla ne soxna yeneen boobee day nga xam ne ñoo dëkk ci kër ga heure bu ngeen ñëwee di leen laaj dara bu leen na saraax ci biir néeg bi daal di koy laaj la nga koy laaj taxawal ci biti rido dox seen diggante nga laaj ko la nga xam ne moom nga koy laaj ca loolu yàlla waxoon ca soxna yonent bi noonu lañ ko daan defee lu bari ci sahabatul kiram da ngay gis ni dañ daan ñëw ci ay Aysa di ko laaj waaye dañ ko daan laaj ci gannaaw ridoom tey jii sunu soxna yi tedd yi ña nga ne la yàlla yàlla barke leen ci gannaaw rido bi ñuy wax dégg nañ ko man ngaa taxaw wax ak ñoom min wara'i hijab borom bi nee na loolu moo gën a sell ci seen xol yi ak xol yi soxna yonent bi mbokk aaya bi ci kan la wàccoon ndax waa Sénégal wala waa Mali mi ngi wàccoon ci góor ñi gën ci góor ñu dox ci kaw suuf mi ngi noonu muy sahabatul kiram wàcc ci jigéen ñi gën a tedd ci kaw suuf muy soxna yonent bi waaye mu ne moytu leen di wéet ci biir néeg loolee mën am mën na jeexital ci seen xol loolu it mbokk ba tey ku ne war cee bàyyi xel xol dafay wëlbatiku seytaane day jaxase amul góor ak jigéen fu ñuy weete lu dul seytaane ñoom ñetteel leen kon ku nekk war naa moytu di dugg ci néegub jigéen dafa wéet ak moom wala dugg ci néegub góor dafa wéet ak moom allahuma nag yéen ñëpp yéen a bokk xam tubaab bi lim ñuy indil muy secrétaire yéen a gam lan muy secrétaire secrétaire boo xamee ni nii buy liggéey yi day mel ni kuy sëy balaa parfum bi muy àndal bu la rombee dix mètres xet gi ni la gël mu ñëw dugg ci bureau bi moo patron bi nar a yendu nag huit heures ba quatre heures du matin ba quatre heures du soir gars yi lii musiba mën na ko passé waay ah mi ngi noonu moo tax suñu benn mbokk mi ngi waa jàkka ji te nett lii seen ñoo xam ne ñu ñu xamanteel la waa ji dafa nekk ak secrétaire bi ci bureau bi magam nag moom moom service bi mu xëy suba ne mag ji secrétaire bi daal dama koy takk mag ji na ko déedéet doo ko takk mu ne kon bureau bi dafay jógee bureau bi moom dootuñu ko bokkate kon yaa ngi dégg waaye mbokk loolee da ngay gis ay musiba mënu koo passé ñu bàyyi ci xel loolu bu baax looloo gën a laab seen xol te mooy bul jàpp ne sell nga sellaay goo xamee ne nii man ngaa yegg ba fitna du dal sa kaw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina jamono bi ñu koy tafsir fitne bi gën a rëy tey dal ñu Sénégal ba fukki bakkan ak benn dal ci mi ngi cosaanoo ci lu mel nii ci fitne yi jigéen ca la commencé ca la mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax ku ne war koo daw war koo moytu suñu borom subhanahu wa taala nag ne yeyul ci yéen ngeen di lor yonente yàlla bi imma lor ko ci toog këram bañ a dem dugg fa heure bu mu leen joxul ndigal wala mu gis leen ngeen dugg ci ay néeg ay soxnaam loolee yépp amul wur leen lor yonent yàlla bi amu leen droit yi di takk ay soxnaam gannaawam te loolee lenn ci sahaaba yi dañoo amoon mébét ne yonent bi day bu dee moo ma jiitu soxnaam yi kenn du ma ci jiitu loolee da ngay gis ne mu fassiru na yi wax nañ loolu ala kulli xaal suñu borom yàlla mu ne déedéet yonent bi alayhi salaam bu fi jógee kenn du takk ay soxnaam ndax jàng nañ ci même saar bi mu ne soxna yi suñuy yaay lañu ndax ñi dina takk yaayam déedéet wa azwajuhu ummahatukum ñooñu seen yaay lañu kon doo ngeen ko takk looloo tax soxna yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu fi jógee ñoom ñëpp ñoo continué dëkk ca këram nga di jaamu yàlla nam ko doon jaamu di ictikaaf nam ko doon ictikaafa di faatu benn benn benn ba wuy ju ko salallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi nag ne loolu lu màgg la te yàlla allahuma nag lu bari ci suñu suriñ si fi nekk it da ngay gis ne jigéen bu ñu takk en général bu ñu dee keneen dutu ko takk waaye mbokk loolu njuumte la lii jagle la bu yàlla jagle loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sinon sahabatul kiram seeni soxna yépp dañ biñ dee takk nañ leen masalan tey da ngay gis ne ku mel ne asma bintu umays moo doon sëy ak jaafar ibn abi talib bi jaafar faatoo ca mu'tata abubakar siddiq moo ñëw jël ko bi abubakar siddiq faatoo ali ibn abi talib moo ñëw jël ko loolee kon da ngay gis ne kan moo gën a màgg abubakar siddiq ci xeet bi gannaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ci xel loolu bu baax allahuma lu dul rek julit it war ngay moytu ay sëy yoo xam ne day jur fitna mbir mën naa bañ a xaraam waaye mën a jur fitna mën na koo jur ci xeet sàngam bañ koo jur ci xeet sàngam loolee da ngay gis ni benn waay boo xam ni mi ngi nekkoon ak ñun fii ci jàkka ji suñu mbokk toog yal na yàlla defal ko àjjana wàcc waayam moo ma nettali mu ne ma imaam am na benn ñu mu xam koo xam ne nii baay bi mooy magu ba baayam dafa fase soxna doom ji mooy ki nga xam ne moom mooy doomu frère am ñoo takk soxna bi mbokk loolu xam nga boo ko defee suñu réew yàq nga mbokk gi am déet loolee ñu noonoo ca noonoo bu tar ba bis xale bi jëkk a dee baay bi ay magu baay bi baay bi dem dugg fi ñu ko doon sange am benn góor boo xam ne topp na ko ñëw fekk mi ngi teg tànkam ci kaw bopp doom ji naan ko waxoon naa la du ma sa morom xoolal loolu mbokk ji ah mi ngi noonu ñoom ñëpp faatu nañu topp ba ma ko doon nettali sax faatu na moom it gis ngeen waaye pour joxe rek misaal ci ne léeg-léeg mu am problème yoo xam ne nii du xaraam ci sharia waaye bu dee dafa nar a yàqu mbokk dañ ko war a moytu amaa nag loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni loolu waxuma bu leen ko def waaye bu leen ko sax xalaat bu leen ko fas ca lépp lu ngeen fas seen biir xol yi xam naa ko lépp lu ngeen feeñal xam naa ko mbokk kon mi ngi noonu ñi ñooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla boole ñu ak ñoom ci àjjana yi kawe ya mi ngi noonu Cheikh Ousmane
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni la junaha alayhinna soxna yooyu day amuñu benn xat-xat ci ngante ci fi abaihinna su deeni seeni bàyyi ñoo bëgg dugg seen néeg wala abanaihinna wala seeni doom wala ixwaanihinna wala seeni frère wala abnaa'i ixwaanihinna wala seen doomu frère ya wala abnaa'i axawaatihinna wala seen doomu sœur ya wala nisaa'ihinna wala la nga xam ni mooy seeni soxna jigéen ña mel ne ñoom wala jigéeni jurit ña wala ma malakat aymaanuhunna wala loo xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy seeni jaam wattaqiina allah ay yéen soxna yi yonent bi ragal leen yàlla inna allaha kaana ala kulli cheyin shahida yàlla day nekk na ci bépp mbir di aji ku koy seede inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak malaakaam day ñi ngi julli ci yonent bi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيين نيغا خامني دا نgeena gëm julli leen ci moom ca ñaanal ko mucc la nga xam ni mooy ak mucc gu mat sëkk mi ngi noonu inna alladhina yu'zuna allaha wa rasula ña nga xamee ni nii ñooy lor yàlla di lor yonent yàlla ba la'anahum allahu fi dunya wal akhirah ñooñ day yàlla rëbb na leen àdduna ak alaxira wa aadda lahum azaban muhina mi ngi leen di waajalit mbugal moo xam ne mu leen di toroxal la walladina yu'zuna allah walladina yu'zuna almu'minina walmu'minat ña nga xam ne dañuy lor julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi bi xeyri maktasabu ci loo xam ne ñoom fagguwuñu ko faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ñu mel noonu day yenn nañu la nga xam ne moom mooy aw dóoral ak bakkaar boo xam ne bakkaar bu biir la mi ngi noonu bu leer la bokk suñu boroom mi ngi wax ak soxna yi yonent bi soxna yi gën a laab xol ci xeet bi mboole seen ne bu benn góor ñëw na saraax seen biir néeg jëfe wéet ak ñoom waaye yéen góor ñi it bu leen def loolu ci biir loolu kon muy soxna beneen bu dul soxna yonent moom jarul ñuy wax yow yaa gën a war a mat a fagaru suñu borom nag génn ci benn liste mooy ña nga xam ne seeni bàyyi lañu bàyyi boobee dafa bo doon sa bàyyi direct wala muy sa magu bàyyi bu mu bokkal bàyyi wala bu mu bokkal ndey ñoo ñépp dañuy dugg ci bàyyi doonte ne dana ca dugg sa bàyyu jëkkër comme nam koy waxe ci suratu nuur aw abai buulatihin gannaaw loolu say doom say sët ku cosaanoo ci yow gannaaw loolu sa frère yéen a bokk ndey u bàyyi wala ngeen bokk ndey bàyyi ak kooku ku mu jur képp koo xamee ne nii sa frère moo ko jur yow jigéen ay doomam yépp mën nañoo dugg ci yow sa sërit na doon ndey ngeen ba ko la bàyyi mboolum ko mu jur kookit mën naa dugg ci yow ndax ñii suñu borom yàlla wax ñépp mooy ñi nga xam ne sëy day aram seen diggante ba faw mi ngi noonu sëy day aram seen diggante ba faw allahuma suñu borom yàlla tuddul fii la nga xam ne mooy ay nijaay tudd fii la nga xam ne mooy ay mago bàyyi yu deme noonu lu bari ci borom xam-xam yi dañuy wax ne ñoom seeni doom dañoo mën a takk jigéen ñi ca bari dugg ci ñoom day tax ñu ñoom di ko nettali feneen waaye ala kulli xaal yeneen aaya jàngale ne ni loole dara nekkul ci ñu dugg ca aba loolu da ciy dugg magu baay ak rakku baay yépp yéen ñëpp yéen ngeen bokk jàng la yanquba doom ya tontu woon ko na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq te ismail juru ko ishaq moo ko jur waaye nag is ismail mooy magu ishaq loolu la lenn borom xam-xam yi di firi ca hadis ba rot ca sahihayni rawatina ca muslim yonent bi alayhi salaam bi mu naan waa ji sama baay ak sa baay ña nga safara lu bëri ci ñoom dañ naan ña ma ngi ca jublu baayam abi talib doonte ni ne loolu ixtilaaf la ci borom xam-xam yi allahuma lu bëri ci ndaw ñi seen tàngaay léeg-léeg it mu yóbbu leen ci lu kenn xamul ndax masala boobu bi nga xamee ni nii am na ko ma ko fu laaj directement ma ne ko la ma wax ca mu leer nañ ñi masala la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ caa am ixtilaaf bokk na ci loo xam ne ñu bëri dañoo jàpp rek ne ña nga sawara ña nga sawara comme la ka mbokk boobu waxoon ca fi alhamdu delluwaat na tuub na nee na dafa def njuumte te it ku tuub dañ koy nangul ak tuubam loolu ñu bàyyi ci xel bu baax allahuma lañ ca waxoon ba indi ca masala boo xam ne nii muhammadul amin shinqiti moo taxaw ci biir juma madinatul munawwar wax ca lañ ca waxoon gannaaw ba dajeeg ay borom xam-xam wax ca loo xam ne ni kenn teggiwu ko am na benn ci ndaw ñi mi ngi doon wax ay wax yoo xam ne doon na ko jëmale ci ñun ala kulli xaal lañ ciy wax rek mooy ñu ngi muslu ci yàlla di wax ci diine ji ak suñu bànneexu bakkan ñi ñaan mooy lépp lu ñuy wax rek dañ koo teg ci waxe ay borom xam-xam su ko defee loolu lañ leen wax ci loolu la nga xam ne rek moom lañ cay tëjee mooy waajur yonent bi alei salatu wasalaam kenn du dugg bàmmeel ñu laaj la loo fas ci ñoom kenn du dem yowmal qiyaam ñu laaj la loo fas ci ñoom tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum lañu liggéeyoon ak fa yàlla di jaar ak ñoom duñ la ko laaj abadan kon loolu jarul ay polémique wala jar ay yenn wax yi almuhim kon suñu borom teg ca ne wala nisaihinna borom xam-xam yi am uuti nisaihin ne lañ koy firee am na ñu koy firee mooy jigéen na ñoom mooy jigéen bu mu mën a doon julit ak yéeféer am na droit dugg ci nekk jigéen julit am na ñu koy firee nag nisaihinna mooy jigéeni julit te mooy jigéeni chrétienne ka nga xamee ne mooy jigéeni julit amul droit di ko won yaramam amul droit di ko won yaramam ndax ñoom gëmuñu liñ gëm dañuy dem di leen melal naan nii nga mel naa nga mel waaye loolu moom ixtilaaf la ci borom xam-xam yi donc kenn mënu caa dogu ci ne xaram na ci jigéeni julit di génnee taaram ci kanamu jigéeni chrétien am nañu ko xaraamal waaye maadaam ixtilaaf la ñun dañuy wax rek ne ixtilaaf la wallahu subhanahu wa taala aalam léegi suñu borom yàlla it mu ne ak seeni jaam mooy bi jaam di am dara nekkul suñu dugg ci ñoom borom bi teg ci ne wattaqin allah ñan lay waxal ndax fat caam ndax fat saar ndax fat njaay la wattaqin allah ay yéen soxna yonent bi ragal leen yàlla kon mbokk beneen soxna bu dul moom it ragalal yàlla xamal ban rapport ngay am ak góori jàmbur fan ngay yem ak góori jàmbur loolee ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne lépp yàlla nañ koy seede lay xew ci pénc ma lay xew ci kër ga lay xew ci biir néeg ba lay xew ci biir bureau ba inna allaha kaana mi ngi noonu ala kulli shay'in shahida borom bi bàyyi loolu daa dina yàlla ak i malaakaam day ñi ngi julli ci yonenti yàlla bi jullig yàlla ci yonenti bi mooy xéewal yam koy yokk ak tagg gam koy tagg sanaa'uhu alayhi jullig malaaka yi ci yonenti bi mooy sakku ga ñuy sakku ci yàlla mu defal ko loolu loolu mi ngi noonu huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu ni muy jullee ci yonenti bi noonu lay jullee ci jullit ñi te mooy yokk leen xéewalam yokk leen la nga xam ne mooy ay ngëneelam ca di leen gërëm borom boobu nag subhanahu wa taala ne yéen jullit ñi julli leen ci moom julli leen ci moom aaya bi bi mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sujjud na sujjud bu gudd gannaaw ba daa di siggi kañ koy nettali mu abdurahman ibnu awf daa di sant yàlla sahaaba yi laaj ko mu ne yàlla day bégal na ma ne képp ku julli ci moom benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dem na it ci benn jataay ca saad ibn abu ibn obada doomam ja Bachir ñu ne ko ay yum yàlla yónni suñu borom nee na ñu julli ci yow nu ñuy jullee ci yow mu ne da ngeen di wax allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahim innaka hamidun majid léeg-léeg hadis yi nga daje ceeg yoo xam ne am na tuuti ay baat yu ca wuute ñii nga xam ne dañ naan allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad innaka hamidun majid ak ni cay dolli fil alamin ila axiri waaye mooy salatu ibrahimiya ca boobu mooy salatu bi gën ci salatu yi ngal waa julit gëmal loolu dem nañ ba ay nit ñi créé yeneen salaat yoo xam ne waxuma ñoo gën salaatu ala nabi waaye ñoo gën sax alquranul karim far wala mbokk nit ñi créé nañ ko dem nañ ba am na salaatu yoo xam dañ ne boo ci defee benn moo gënoon nga toog di jàng juróom benn junniy kaamil loolee mbokk ay njuumte la loolee ay njuumte la dañ ci bàyyi xel bu baax salaatu ala nabi bi gën ci salaatu yi mooy salaatu ibrahimiya gannaaw ba it noo jullee ci yonente bi alayhi salaam baax na la ci gën a gàtt allahuma salli ala muhammadin wa sallim ngi noonu yàlla yàlla na nga julli ci yonent bi ca muccal ko sallimu taslima mooy ñu ñaan yàlla ah jàmmal ko jàmm goo xam ne gu mat sëkk lay doon jàmmi adduna ak jàmmi allaxira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii mbokk farata la ci doomu aadama yi yàlla sant leen ko dana gën a feddili ko bu dee da ngay wax aw turam jullit du wax rek qaala rasulullah qaala muhammad qaala nangam déedéet heure boo tuddee yonent bi da nga ciy boole salallahu alayhi wa sallam heure boo diggeew turam it da nga naan salallahu alayhi wa sallam lu dul borom xam-xam yi yombal nañ ci bu dee da ngaa nekk cib jataay ñu tudd fa yonent bi alayhi salaam nga julli ci moom yeneen tur ya yañ koy tudd boo ci julliwul ci moom it garaawul waaye daal lu mu néew néew néew néew jataay ba nga toog dégg turu yonent bi wala mbedd ba ngay dox dégg turu yonent bi ila axiri fokk war ngaa julli ci moom salallahu alayhi wa sallam borom bi nag ne ñi nga xam ne dañuy lor yàlla ak yonenti yàlla day yàlla rëbb na leen bokk lor yàlla bokk na ci li borom bi subhanahu wa taala wax yusin ibnu aadama yasubu dëhr wana dëhr mooy doomu aadama yi ñu ngi may lor dañuy rëbb temps bi ak li ciy xew te mu ne man maay indi temps maay indi la cay xew doomu aadama yi lor nañ do suñ dañu lor suñu borom jiñ ko ne am na doom doomu aadama yi dañuy lor yonenti yàlla bi lu ne ci façon lor lor nañ ko ko borom bi nag ne képp koy lor yàlla di lor yeneen ci yàlla rëbbum yàlla mi ngi wàcc ci yow ki nga xam ne ibnu taymiya rahimahullah bind na ci benn téere boo xam ne nii jege na ëpp na trois cent pages mi ngi ko tuddee saarimul masluul ala shatim rasul jaasi ju ñu bocci ci képp koo xam ne day xas yeneen ci yàlla bi kooke buñ ko jàppee rey rek lañ koy def mi ngi noonu képp ko lor yàlla ak yeneen ci yàlla mi ngi noonu rëbbum yàlla ñeel na la ba faw loolu dalay génn ci diine képp koo xam ne wax na wax ju ñaaw jëme ci yàlla wala yeneen ci yàlla loolu da koy génne ci diine am maa ne ki lor ab julit góor la am jigéen ci loo xam ne fagguwu ko na am ki nga xam ne dafa njaaloo dañ ko war a dóor ay xeer ba mu dee bu dee mas naa sëy bu dee mosu sëy dañ ko war a duma ki nga xam ne daa sàcc dañu war a dagg loxo bi lu war a loolu mooy moo ko faggu waaye julit boo xamee ne nii fagguwul lu bon nga jël yàq ab deram lor ko ci wax wala ci jëf borom bi nee na indi nga aw dóoral dóoral googu la yonente bi alayhi salaam doon wax sahaaba ya ba mu leen laajee waaw ndax xam ngeen luy jëw ñu ne ko ah jëw day yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne mooy nga waxal sa mbokk jurit loo xam ne bu fi nekkoon du ko neex sahaaba yi ne ko waaw bu dee li ñuy wax dëgg la nag mu ne waaw bu dee li ngeen wax dëgg la yéen a ngi koy jëw li ngeen di wax nag bu dee du dëgg yéen a ngi koy dóoral mooy buxtaan bi yàlla wax te mooy mbokk doyoon na rek jëw musiba ji gën a màgg ci musiba yi mbokk julit def dara nga wax ko gannaawoo amaa nag duural ko lu mu deful moom loolee mbokk musiba la boo xam ni bu gën a màgg ci musiba la bokk mën tudde buxtaan borom boobu subhanahu wa taala nag ni ñooñu nga xam ne dañuy def loolu day ñooñu faggu nañu la nga xam ne nii moom mooy bakkaar boo xam ne nii bakkaar bu mag la mi ngi noonu walla ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu benn bismillah
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين الرسول فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما jazakumullahu khairan cheikh ousmane waaw kon suñu borom mu ni ya ayuha nabiyu qul li azwajik ay yow yonent bi waxal sa soxna yi wa banatik ak sa doom yi jigéen yi wa nisaai lmuminin ak jigéeni julit ñi yudnina alayhinna min jalabibihinna ñu nekk di wàcc ci ñoom ca la nga xam ne mooy jallaabi yi ñuy sol jilbaab mooy luy jóge ca kaw bopp ba wàcc ba ca suuf zalika adna an yu'rafna looluy gën a yey ci ñu xàmmee leen fala yuzayna bu boobaa kenn du leen lor wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla subhanahu wa taala day nekk na koy jéggalaate nekk na koy yërëmaate mi ngi noonu mbokk dañuy gis ne aaya bi la ñuy tuddee aaya xijaab mi ngi noonu am na fi ko doon wax naan jàng na suratu xijaab waaw waaye ala kulli haal lii aay la aaya xijaab ba suñu borom wax ak aaya ba nekk ci suratu nuur mbokk yàlla bi muy santaane muuraay mënoon na wax rek ay yéen jigéeni jullit yi ñu ne jigéeni jullit ñi muuru leen mënoon naa yëm foofu rek ca du tee mu nekk farata waaye yàlla gën a xam ay jaamam xam ne lan la muuraay du jur moo tax moo commencé ci yonent yàlla bi ay yow yonent yàlla bi jëkkee lu wax sa soxna yi nga xam ne ñoo gën a laab ci société bi ak sa doom yii nga xam ni ñoom it ñu laab lañu laab mënta paase nekk doomu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa doom yi gannaaw ba nag nga doog a wax soxna yi julit ñépp ne leen ngalawaay nañuy jël di muur seen awra jilbaab boobu nga xam ni mooy lépp lu jóge ca kaw muur ba ci suuf am na mbubb yu ñuy tudde jilbaab ngeen gis suñ jigéen ñu tedd ñu baax ñi di ko sol gaa yi diaboliser leen lu nekk ñu teg leen ko waaye itamit képp koo xamee ni nii amoon nga grand mbubb boo sol am muuraay boo xam ne da nga koo muuroo mu muur lépp lu dul sa kanam ba muur sa baat ak sa dënn yépp loolee day taxaw taxawaayu jilbaab mu am benn ixtilaaf bu am ci borom xam-xam yi ndax jigéen buy muuru daa war a muuraale kanamam ñoom ñépp dëppoo nañ ne looloo gën uute nañ nag ndax farata la am du farata boo demoon ulama yu nekk arabi saudi teg kenn yu deme noonu ñoom dañ ne farata la jigéen muuru kanamam ci kanamu góoru jàmbur amma bu dee yeneen borom xam-xam yi dañ ne déedéet loolu du farata ngëneel la doonte ni liñ koy waxee toujours tubaab yi dañ naan dans le pays des aveugles la borgne et roi ay waa ñun Sénégal bu ñu jotoon rek ci jigéen ñëpp di muuru génne seen kanam mi nga noonu ala kulli xaal suñu borom mu ne kon nañuy muuru muuraay googee mbokk jigéen bi muuroogul nga la waay xamal ne loolu farata la de farata la bu yàlla gàll sa loos xamal ni bis buñ lay jël di la delloo sa borom dañ lay muur ba nga daj doog laa suul ci bàmmeel am déet ku santaane loolu kan moo santaane góor ak jigéen bala ñoo suul kenn nuñ ko lëmës ba pare doo koo suul du yàlla ko santaane kon it yàlla moom moo santaane yow jigéeni juri bi na nga muur sa awra na am même bu ñu xamuloon xikma bu ca nekk yàlla digal na ko jàng nañ ci dar si passé wa ma kaani li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara am déet mooy daganul góor ak jigéen yàlla dogal ngay hésité naan ndax damay defoon moo def waaye suñu borom wax ñu xikma bi xikma bi mu ne bokk na ci ñu xàmmee leen zalika adna an yu araf na ñu xam ne yéen du ngeen jigéeni caaxaankat am déet mbokk ngeen xam ne du ngeen jigéeni caaxaankat te wallahi mbokk xale bu jigéen bi muuru fii di sol ay jilbaabam ñiy séddale invitation kola dara ak bal ndax daañ ko jox carte déedéet ña nga xam ne ñooy kobos yaa xale yu jigéen ca mbedd ma ndax daan ci bokk déedéet kenn ku ñu àndoon ak ñun ci jàkka ji fii mi ngi noonu di suñu mbokk ba mbay jàkk rahimahullah demoon na benn mission ci Allemagne nee na fi ñu doon jàngee ñu ngi bis dugg nañ seen kaar ay nationalité yu bëri ña nga fa woon mi ngi sës ak benn mauritanien nee na gars yi bi ñu rombee ci mbedd mi ku ñu romb rek ci jigéen ñi ak seen sipp ya ak seen kii sànni la ay xoletu orange tooñ la nee na ñuy dox ba mujj dajeeg ñaari jigéen ñi ngi sol seen jilbaab di dox kaar bi romb leen gaa yi xool xool kenn yëngatuwul xa Mauritanie bi na ko waaw monsieur Dia ndax gis nga réaction gaa yi mu ne wax li yàlla wax rek mooy dëgg ña nga xam ne dañoo muuru kenn du leen nekk di cokkaas ko lor ndax xam nga ni doo ci am bunt fala yu osay na borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni yàlla koy jéggalaate la yàlla koy yërëmaate la loolu moo tax ba yàlla nee na yonent bi waxal sa soxna waxal sa doom waaye sëñ caam yow it boo demee kër ga waxal sa soxna waxal sa doom am déet fexe leen naxanteeg seen njaboot yonent bi alayhi salaam nee na sinfaani min ahli naar lam arahuma ñaari mbooloo ngi nii sawara lañ jëm man day gisuguma leen waaye ñu ngi ñëw sama kanam jigéen ñoo xam ne dañoo bëri yére lool waaye buñ génnee rafle mbokk liñ ciy dund sunu maam yi mosuñu ko dund ba àdduna sosoo ba tey ni yàlla tasaare yére kenn mosu ko xam dans l'histoire de l'humanité mi nga noonu képp kenn ci yéen bu demee këram xamul ñaata yére la fa bàyyi seeni soxna buñ jógoon fii sa yére ay pile ay pile la ba pare bu ñu génnee bàyyi seen awra ci bitti ku nekk ci ñun na ci góorgóorlu kem sellal kattanam borom boobu nag subhanahu wa taala nee na mooy jéggalaate mooy yërëmaate te mooy bàkkaar boo mënoon a nekkee bis boo ko tuubee yàlla bal la looloo tax ba nga la way yow faccaam bi nga xam ne ni daawoo muuru bis ne ki tey dégg nga lii muurul soo muuroo lor tegee ko na ci yow soo muuroo am nga ngërëmal yàlla soo muuroo am nga barke boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dana la ko barkeel loolee mbokk mi ngi noonu yal na yàlla sàmm ñu sàmm suñu njaboot laabal ñu laabal suñu njaboot wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax soxna si jëkkëram gaañu am na droit tànnal boppam ne dootu sëy am na droit tànnal boppam ci loolu bu dee ne mën naa fekk boppam ba du dem ci njaaloo képp koo xam ne wóolu nga sa bopp ci ne yow doo dem ci njaaloo man nga tànn sa bopp bañ a sëy borom bi la muy wax ci sëy mooy danaan zalika liman xashiya al anata minkum ka nga xam ne dañ naan ko sëy bi farata la ci yow mooy koo xam ne am na kum sëyil te ragal na dugg ci njaaloo mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam wala kulli xaal ndax bu ñuy julli ba tudd turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo war a julli ci moom bokk loolu ci biir julli kenn du julli ci moom la nga xamee ni mooy xatta xutba juma bu ñu julli bu ñu tuddee turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne ne nañ mën ngaa julli ci moom ci yeelu am na ñoo xam ne dañ ne sax waroo julli ci moom ndax yàlla ñu ko sant waaye foofu yàlla ñu sant noppi bokk na ci mujj ñooñu ku mel Cheikh Nasir Albani ala kulli xaal loolu la ñuy wax ci wàllu googee amma kay di jël peelam di wax minha xalaqnaakum kaza wa kaza loolu dañ naan sopp nañu ko fokkee ab néewu julit ci suul ba ba mënee nga barkeelu ci waaye pour ndax yonent bi alayhi salaam wér ne ne mas naa fekk néewu julit tibb naan minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum loolu wérul lu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa ala kulli xaal ñu mujj ci mbokk bi rek dox guddi na léegi bismillah waaw dafa waaw
gëm na muuraay mais day muuru ah mu yaram yëpp daj benn diir mu jékki-jékki daal di daal di mu reekuwaat ah ci loolu lay kii wala lay mu def loolu ah.
waaw ala kulli xaal ala kulli xaal ala kulli xaal wax nañ ci tafsir bi doomu aadama yi ku nekk daa am sa programme bu bopp koy seeti yow yaa war a xool ndax heure bi dana ko arrangé wala déet lii valable ci ma demba mën naa bañ a valable ci ma samba suñu borom daal jox nañu ñetti waxtu yoo xam ne nii nit ki war na ci def attention mooy min xabli salaatul fajr te loolu jàpp nañ kenn du seeti nit avant fajar waaye xiina tadduuna siyabakum min azahira mooy buñ jullee tisbaar heure bu nga xam ne heure sieste la wa min baadi salaatul isha ak la nga xam ne mooy gannaaw gee la yooyu moom ay heure awra la daqantiwul nag ne mën ngaa xam sa waay xamin boo xamee ni nii su ma fa demee waxtu yi moom du ma lor bu dee xamoo ci moom loolu waxtu yi war nga koo doon di ko moytu amma jigéen bi muuroo ko mureeku moo kii jullee ka bàyyi wala kii woor ko dox ñoo yem ku mel noonu dañ koo war a laaye biir mi ngi noonu laayu ko biir delloo ko ci boromam subhanahu wa taala ngir loolu saxal diineem bokk jot bi mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi fàttali mbokk yi rek ci mille francs yi ñu doon barkeeloo par mois barakallahu fiikum